Abonnez-vous sur votre chaîne Equivox TV pour plus d'exclusivité et activez la cloche de nga Tyson 2. waaw maa ngi koy dégg nag. Franc xam naa ko bu baax seetaan naa ko nii rek ah. xam nañ ko parce que dernier combat Franc bi moo doon bëre góor a seetaan nañ ko quoi. parcelle xaw ma sax kuy Franc yàlla xam na may wax nii te combat Tyson 2 yëpp xaw ma kuy xaw ma kuy français dama koy dégg waxi nit ñi nii rek. ñun xam nañ leen xam nañ lu xam nañ ñoom lu ñu mënee. non Franc moom xam nañ ko bu baax a baax a baax a baax xam nañu ay qualité Birame bu baax. Tyson de jëmuñu ko sax lijjanti wax dëgg yàlla jëmuñu ko sax lijjanti xamuñu ko jëmuñu ko sax xam parce que suñu mbër lañ xam moom lañu gëm moom lañu wóolu xam nañ moom mooy kan xale la te dafa nekk ci yoon wax dëgg yàlla. sañ ngaa wax ni lijjanti woo leen Tyson 2 Tyson 2 fi fi barki démb Ndiaye Goroso. non xamuñu ko billaay xamuñu ko kii lañ xam kii lañ gëm xale buy liggéey la bu nekk ci yoon dafa nekkatu ci yoon te fu mu jaar yoon la te fu mu dem bay jaar yoon la te day am ndam incha allah rabbi. gars yi buñ koy pare gars yi instant bi yaakaar naa ni xaaratuñ dara bett leen quoi xaaratuñ dara bett leen parce que mbër moom soo nekkee moom si koñ à chaque fois da ngay sóoraal ni mën na jékki-jékki rek ñu ne ko combat taxaw na. dañu xam ñun lu ñu yor mooy lan. dañ ko xam bu baax. damaa gis ni ki nga xamante ne moom mooy Tyson daf ko jël ba pare di ko minimiser mais yéen est-ce que ñeme ngeen Franc. non Franc moom ku ko raw sax ñeme nañ ko. kooku moo kii du ko ku ñoo ko sut ñun nu ñu jàllee ñoo mën Franc kon Franc ñu jaaxal. yii dañ koy respecté bërikat la mais ñun dañu yor mbër pire. ñun dañoo wóolu suñu mbër. dañoo xam ñun ku ñu yor ñun. moo tax combat bi tiituñu si. dafa dugg parcelle de jaaxal seen gars yi mais comme mbërum la ko waxee rek bu jaaroon si moom amaana li yëpp du am. Franc parce que Tyson bii li mu def si làmb Franc deful genn wàll bi Tyson li mu bëree tam coono gi muy daj Franc ko daj Tyson 2 moo daax a bëri Franc aller retour. mais tamit aussi na xam ne xale lay bëreel de waaw na xam loolu quoi mais làmb ji tamit lu mu ko jaral ñun ay xale lañ moom mag bi su ko mënee jaral ñun xale yi nu ñu war a def. ñoom euh, Goro Sock ñu toog caaxaan jeex dëgg des mu laaj leen ndax tey jeunes deux mën na bëri dinañ di moom dina leen wax te Franc bu fekkente ne moom dafa yaakaar ne tey jeunes deux day àgg ñëw daan dem yoonam mu ngi naan boobam. tey jeunes deux day tàngal ceeb nii rek. fii duñu ay ngaakate sa waay mafia bi toog fii duñu ngaakate dund nañ làmb xam nañ si tuuti te mbër bi tam du ngaaka tarbiw na làmb am na lu mu bëgg. mais Franc moom maa ngi ay combat yu bëri mais bëriwul kele de amul kele sax laa la mën a wax. amul kele maa ngi muy def day puusante rek comme la grand bi wax rek bëri puusante la rek maa ngay combat mi bëri waaw jëful dara day naxe rek bëri système lay bëri ñun dañu ay ngaaka de day système rek yaa yaa daw jéem la juumloo dem ñibbi billaahi xale mooy doole xale mooy doole <laughs> doole mooy daan nit mu la doole mooy daan nit tontu woo de doole mooy daan nit bëri mooy daan nit waaw moo tax kenn daan mais doole bu fekkoon mooy daan waaye kenn du jël drapeau bi si Bombardier waay. non am na doole mais doole tamit doole lu tuuti rek si bëre. bu toogee ci place am boobu mu neex muy wax lu ko neex. waaw dafa yomb de su laajoon bébé Saloum wax yi mu doon wax moom day noppi. wóolu nañ suñu mbër Tyson 2 ay pokaar la ko doon indil mais bi yoon ay plaque lañ koy indil dañ ko dor ay plaque plaque. plaque mooy nappa jën yi si géej dinañ ko fëgg ay plaque ba lu yaranka dul daj dina ko daj bu combat bi jotee. billaahi wallaahi tallaahi ñoo la ko wax dina ko daj Tyson 2 li mu am ci combat bi dafa jafe da daan bëri fekk ñu àll mais bi yoon daf ñoo fekk ñu ñëw toog ci dëkk bi gisa boo xoolee fii ñëpp a ngi fi dinañ ko dóor ay palaak ba du ko fekkee comprendre kii dañoo yàgg ànd depuis mbapat ba tey affaire bi du Franc affaire bi Modou la ñun du Franc taxu ñoo jog de barke Cheikh na Cheikh Saad bu laa la waatal du Franc taxu ñoo jog waxu ñoo Franc sax na xam lépp jaam ba yaa ngi bu bës baax da nga Tyson dina xam ne moom xale la ko sekkal quoi. nga ni. wóor na yàlla xale la ko sekkal. ki booy bu ndaw la juddul man mii rek xale laa saxantu naa moom. dañoo ñàkk a jom quoi. nga ni. parce que ñoom bu ñu bu ñu. ñoom parcelle la ñàkk a jom. xam nga lu tax ma ne dañoo ñàkk a jom. ku tourné mu ne Tyson 2 nga ñëw Tyson 2 dóor si suuf keneen ñëwaat laaj Tyson 2 dóor si suuf keneen ñëwaat laaj Tyson 2 dóor si suuf léegi bu yàggee kii moo si des Franc moo des Franc moo des wala des na keneen. Franck Modou Garga Mbossé ragal la Papa Sow ragal la ñoom nee ñëw ñu jël Tyson 2000 ñoom ñoo lay naataango. ñoo yebal xale ñoo ko yebal euh, ba daanoo ñoom dinañ ko jël Franc ba pare. Franc ba pare ñoo yebal Goro Sok yebal Franc yebal Garga 2 ah ak Nelson. Nelson Arénatour Arénatour fo Arénatour bi moom moo bëri Tyson 2. mais est xale rek doy na pour daan Tyson. bu baax lu mu gëm liggéey kese la gëm boo leneen loo ko waxul lu dul liggéey xamuloolu liggéey rek la xam tam tam ñu koy ñaax tam xam ne xale la waaw def kom nu mu ko daan defee rek gën yokk affaire yi bañ di xeb lenn lu ko làmb may mu jël. nañ laaj Nelson. kan moo koy daan ñoom ñëpp dinañ ñëw jël Tyson 2 ñoom ñëpp man Tyson 2 wóolu na ma ñax ñoom ñëpp Modou Lo ñoom ñëpp wóolu na ma ñoom par benn par benn par tey biñ ne biñ ne biñ ne géewaloon fii par benn mu daal ñu bay jee. moom yàgg nañoo seetaan ay combat ñu ko gars yi waxee rek bëre nag la yor quoi day buuxante rek waaw feeraay la quoi benn instant ñun waxu waxuñoo ak feeraay quoi Tyson 2 lañ moom feeraay bu mag la ñu ko téye moom mu ni na woon fa woon rek. Tyson 2 damay ragal bu jour ba mu def ni grand def di commencé def sport business. <laughs> te nag yaakaar na ñun ak liñ yor buñ ko jàppee du yàgg incha allah. kan moo gën a dangereux ak Franc. <laughs> moom na jël lépp na gën a danger na ëpp doole mooy loolu nañu gën a xam la mais bu bis baa buñ bu arbitre tëjee barrière yi mhm. mooy yenn boppam ñibbi. incha allah incha allah. c' est dégg bu nekk nun bëre nañ ko n' est ku xamul Tyson 2 xam nga ko fépp muy mbapat bi Franc mi xam na ne xëy na moom ak Tyson 2 Tyson 2 3 appuis sax du Franc 3 appuis Tyson 2 mën na ko may 3 appuis sax du ko daat ah boobu moo dee ñun dañoo sonn si parcelle mbëri parcelle dañoo topp wekk dañ leen daana daana daan bu sonn ngir yàlla walaay rasool yi mais nag xam nga bu ko jàppee doy de jàpp wër na Serigne Bamba ñun ragaluñu feere xañe wërsëg bu ñu ko nee kirtim du doy kon da ngeen jàpp ne yéen a ëpp doole Tyson non ëpp ñu ko doole sax bu ñu tëyee barrière yi lépp na leer wër na borom Touba ku dàq bëre non ñu moom dañuy bëre moom du ñoom duñ caaxaan waaw jàpp def action la ñuy def ñu dem suñu yoon. mais kii daan bëreel. waaw mais ba tey li mooy li ma la wax nii rek jàpp def action dem suñu yoon. du yomb ñun amuñ ku ñuy xam nga tëj barrière ñuy reculer déedéet ñu jàpp dem suñu man du ma wax waa parcelle moom laay wax moom laay moom laay yokk a jom na entraînement bu baax parce que mooy sama mbër. loolu kese man sama mbër kese laay conseil li ma koy conseil moom desalu Alane Ndoye desalu ñun dara mu jox ñu dañuy dem mu ñaaka ñu jox dañuy dénk li ma dénk franc rek ne ko waa ji dugg na fi ñaari yoon daan waa waa waa kii euh, parcelle mbooloo fexel rek ba génnee ko fi. làmb la rek franc mooy lim la wax amul benn mbër bu mu ko war a jaaxal ci làmb ji parce que bëri na ba yegg si fii su demee ba jël Tyson 2 parce que war na war na xam ne ni moom xam nga làmb moo leen boole ko man gëm naa booy bi xam naa tempérament am xam naa ne du koy caaxaan waaw gëm naa loolu. na ko fi génn incha allah. leen nuyu yéen waa Equivox TV di con am contentement bu wér daal en même temps tamit ngeen jégal ñu ngi jaale ak lu làmb ci Jules Baldé Junior bi fi génn démb. waaw combat bi ñu ngi koy waajalee comme ni ñu doon waajalee yeneen rek mais jusque bii moom xam naa dina am changement dina am bu ndaw daal ci kàttanu yàlla parce que dayoo bi moo ko laaj. amaana ku ñuy bëreel tamit laaj na ko parce que champion la mooy ni ko champion mooy ni ko Franc waxee léegi champion la koy nangul mais mi ngi bëre ka nga xam ne super ñu loolu lañ koy wax quoi ñi mu doon bëreel ak ki muy bëreel nii bokkuñu nañ bàyyi ba bés ba de bu bés ba dina xam ne ñi mu doon bëreel ak ki muy bëreel bokkuñu ci ci ci wàllu mobilisation bokkuñu ci wàllum neexal estaat bokkuñu ci wàllum biir biir géew dina xam ne bokkuñu champion lay bëreel ñu ngi koy dégg nag muy wax fu ne naan ay moo ko dàq bëree mënul dóor waa parcelle nii waa parcelle laa lenn rek laa am lu ma koy wax bëriwul la waa parcelle Frank lay de mooy loo mbër waxee bés ba baar bi wàccee loxo yi nañ su boobaa di nga xam ne lépp dëgg la. waaw mobilisation moom gars yi ñu ngi koy waajal quoi ñu ngi koy waajal bu baax xam nga ñuy woo waa passé 1 ba 26 dinañu gars yi ñëw jàpp si combat xam ne France seen doomu ndey la seen rakk la di woo leader yi waa passé yi xam nga ñu mënuloo xam nga mbëri fi leen woo gis nañ taxawaay waa passé quoi tamit benn saa rafet na quoi. mais ñu ngi daal ñu ngi naan bër daal yàlla def si jàmm xam nga affaire gën a sérieux parcelle ñëpp ñëw jàppale ko. xam nga affaire yi nekkatul affaire koñ affaire PA la jamono yi sa waay moo fi nekk di représenté parcelle nañ ñëpp jàpp xam nga mbooloo bi ñu woon ñam per ba gars yi gën si jàpp affaire yi gën a dëgër waaw ndax koñ bi moom grand yëpp a ngi si jàpp xam nga ñu ngi siy def seen alal ñëpp a ngi siy jàpp daal waaw. tey jënd wóolu na ma ñax ñoom ñëpp Modou Lo ñoom ñëpp wóolu na ma ñoom par benn par benn ba tey biñ ñu biñ ñu mu daal ñu bay jee kon ñoom day ñaaga jom nay bàyyi tey jënd ñu jéem a seet beneen boor Franc mbër la rek. mbër la. Ah. waaw. moom mën na bëre. mën na bëre kay bu baax. am nañu euh, xam daan. xam nañ ko kay. Bébé Saloum. la daan waaw. ak ngel bi sax. ak njëga doole ak njëga doole. ak xam nañ ko dañ koy seetaan di jumbale. fi mu ngi waaj a bëriwaat rek Tyson da ngeen di jubilé wala. dañuy jubilé kay da koy rey. ñëli. dañ koy rey maafe dañ koy def Si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas d'appuyer sur la pouce bleue pour liker.